jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek keneen ñu koy topp saa su ne ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën fës ci yi nag dañu wutali diwaan bu Ziguinchor foofu ci université Assane Seck euh, daal nañu nemmeeku nag ay jàmmarloo yu dox ci diggante étudiants yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy force de l'ordre yi ginnaaw manifestation yi nga xamante ne rek nemmeeku nañ ko ci boobule université nag ay jàmmarloo yu métti nag doroti na euh, ci diggante nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy étudiants yi ak ñi di Euh, de Lordi foofu ca université asan Seck bu Ziguinchor jamono ji nag ay grenade lacrymogène ña ngi koy tiré ñii di étudiants yi ca wet ga nag ña ngay jël ay xeer rek di sànni mu nekk chaîne bu doy waar la mën a jur nag ci boobule mbir moo di ne nag jot na am ay njeexital ci école yi nga xamante ne rek ñoom ñoo den nag université bi ndax yooyu école yëpp tëj nañ ko ba noppi dàqal seeni cours depuis ajuma bee ñu génn ba nekk ni ñii di étudiants yu université Assane Seck yi nag ñoo doon ab grève boo xamante ne rek ne nañ grève illimité la ña ngay sàkku rek ñu daal di ñoŋal bu baax nag nag seen anam bi nga xamante ni rek moom la ñuy dundee rawatina nag nañuy jàngee ak wàllum euh, social ba ba tey euh, ci wàllum xibaar nag euh, bu ñu jógee foofu dañuy daal di àddu rek wax ci Mamadou Ibra Kane mi nga xamante ni rek ma ngay woo nguur gi nag ñu daal di concentré wu li nga xamante ni rek moom mooy priorité maanaam daal li gën a amal solo askan wi kii di Mamadou Ibra Kane nag nee nguur gi ci jëm boppam rek dafa war a agir nag ci priorité askan wi moom Mamadou Ibra Kane daal nay réagir rek ginnaaw bu mu defee remarque nag Euh, ci ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Thiam ak Moustapha Diakhaté ak Adama Gaye naam sax ñoom ñooñu daal dinañu am nag ak liberté waaye dinañ leen jugé ni ki aljuma bu ñu sukkandikoo ba tey rek ci journaliste bi nee na nguur gi ci jëme boppam rek euh, dafa war a concentré wu ci priorité nga xamante ne rek yitteel na Sénégalais yi te mu nekk nag urgent maanaam daal euh, mënta xaar ne moom ci jëme boppam rek da doon toog di yaakaar ne kii di Moustapha Diakhaté ak Adama Gaye dinañ leen bàyyi ginnaaw bu ñu leen auditionné ci kanamu procureur naam sax kenn ki dar am liberté keneen ka ca des nag di Moustapha Diakhaté yaakaaroon ne rek moom moomu dina am ab liberté waaye justice am na doole bu fekkee ne rek juste na di kaddu kii di Mamadou Ibra Kane ne nag mi ngi daal di yëg ne rek beneen opposant buy wéy ci turu Cheikh Thiam moom tamit daal dinañu koy teg loxo ne na daal dafa mel ni rek dañoo sant ne rek justice moom ci jëmmi boppam rek dafa daal di am ay vainqueur di kaddu kii di. Mamadou Ibra Kane mu daal di cay yokk nag moom si jëmmi boppam rek nee na majorité bi nga xamante ne rek jox nañ ko nag ñii di euh, nguur gi waaye nag war nañoo attaqué rek soobu nag euh, ci li nga xamante ne rek moom mooy jafe-jafe yi rawatina li nekk en urgence lu ci koom-koom bi ak social di kàddu kii di euh, Mamadou Ibra Kane mi ngi ko daal di fësal rek ci page am ba tey ci wàllum xibaar ba ñu jógee ko foofu dañuy àddu rek wax ci Madiambal Diagne mi nga xamante ne rek daal di retiré plainte ba mu plainte woon kii di Dame Mbodj moom journaliste bi di Madiambal Diagne nag ginnaaw ba mu accusé rek ne kii di di sosol moom journaliste bi nag daal na plainte bi nga xamante ne rek euh, plainte woon na ko kii di Dame Mbodj ne ne avocat am di maître Boubacar rek euh, boobulee plainte euh, la daal di plainte woon kii di monsieur Dame Mbodj la mu ko doon toppee rek mooy da ko daal di sosal nag ginnaaw ba mu gisee ni rek jot na nag jamono ji ñu daal di dakkal lépp loo xamante ne rek xiiroo ak ngaayaloo mu nekk annonce bi nga xamante kii di Madiambal Diagne dafa accusé woon Dame kenn nag da ko daal di sosol ba noppi daal di dëggal ne moom mi bandi la dolankan la di kaddu kii di Madiambal Diagne jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am a i xibaar